Il fekke ngeen conseil municipal bi mu jall ndax it lu ville ville bëgg def bu ko toggé bu kay togg mu yobbu ko conseil municipal d'accord nañ tam dit palme bi programme d'assainissement liquide municipal 2024 2028 lu tax ñu koy togg ñaari at ndax assainissement ni innovation da nga koy am ci même ay projet pilote am nañ ko ci sax am na projet pilote du xam ne sax parce que moo ñu ko permettre donc tàggat nañ suñu bopp testé suñu bopp ba togg nag programme bu ñuy wooyee 2024 2028 ñetti composante benn bi mooy population yi li ñuy def ci quartier yi ñu lenti leen ci yaatal ko yok ko ba nga xam ni du nekk saafara du du jàngoro ñaar di ngeen gis kano yu mag comme xam ndoxum taw war def mais boo nee drainage dafay baax am na canaux yoo xam ne ñoo war a gën a yem ba ci yu gën a tuuti toll ak doolooy maire yi maire daf ko war a def ñett mooy plaidoyer plaidoyer mooy jéem a ñaax nguur état ndax état moo am compétence assainissement te am na loo xam ne moo am dooleem li eggul mu eggale ko li matul mu mottale tey nag dañ tey lañ tàmbali palme bi mën ngeen tey lañ ko lancé tey lañ démarré travaux yi bi ci njëkk moy li ñu bëgg def ci canal central ci exutoire bi exutoire bi fa ndox Vous ci la fa né bis Vous fa ne mënul permettre bu taw bi metti magee taw bi non da fay tass dugg ci quartier yok ndox mi nekk këri ko ñun liñ ci jublu moy buñ ko des ko baax ko mën am même si tronçon bi nga xam ne ci des tronçon mom tronçon am dol def ko mais mo ñu fa muy ba nga xam lay lay jéggi lay di dem feneen wàññeeku kon loolu mooy solo foofu dem nañ aussi ruqu dëgg loo xam foo xam ni faloon population yi dañu yàgg di yëngatu ci wàllu assainissement daara waa Daaru Salaam waa Dangu waa Fass ñëpp dañ ci yëngatu ñu bokk ci lu bari mais dafa am foo xam ne fa la ndox bi fa la foofu foofu ñoom ñëpp foy jaar moo gën a métti ñoom te yaa gën amay coow ñun dañ koy foofu dañ koy defaraat dañ koy defaraat Ah, fi mujj nag mooy fi ñu dem ci à l'ouest booru cité ñoo xam ne ñoom nañ ko zone boobu dix dix quartiers ñoo ko bokk waaye cité SDE cité Bindi Thiam ñoom nañ ko bokk am na benn canal bu fa nekkoon muy canal Capec boo xam ne mooy jaar foofu ba jaar ba dem ba ci bor ci ZAC bi ñun dañ koy parois yi dañ koy defaraat ndax drainage ñoom góorgóorlu nañ ba am ku leen état jàppale leen ba ñu yokk ba ñu yokk ko sax ba da indi fi benn fii 300 ñun dañ leen jàppale aussi ñoom ci ouvrage

ma ne bu ñu ko defarul woon sax mën naa moo tane parce que yow dem nga jël ndox mi ci kaw yëpp indi ko war a war a ko mottali tuur ci géej gi nga yemale ko fa tu ñu ko xëpp ko waa Médina ak waa Kër Kaw ma ni waaye boo amul woon sax mun naa moo tane donc loolu plaidoyer moo ñu ko mën a permettre ñu mottali ko ndax amuñu kattan boobu yenn a ngi fàttali programme d' assainissement des villes des villes te nga ci la bokkoon mais dëkk yu bëri boo demee dañ ñoom seen pare ñoom seen bos jeex na pare na

premier volet dina am 3 milliards 300 beneen bi am 3 milliards 200 et quelques fii ñu am ay moins de 200 millions mais c'est ça ne veut pas dire que c'est c'est moins important parce que assainissement mo demee loolu ouvrage structurant primaire fay am mais ouvrage secondaire day am ak tertiaire population tertiaire mo moo leen di jege kon loolu mën na am population ak ak maire mën ko def mais nak structurant bi mooy walu état motax volet plaidoyer troisième volet bi amna solo trop volet renforcement de capacité aussi

parce que da ngeen bëgg population yi ak ñi ñi bokkul sax Tëngéej xam li ñu li li maire yi bëgg def ci Tëngéej. d'abord ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm si journée bi nga xamante tay tey bokk ngeen ko ñun journée bi nak lan la moy que ne journée de lancement ce qu'on appelle le programme d'assainissement communautaire ñu ngi koy wax le PALM. journée bi nag boo xoolee def nañ ci ñetti zone zone bi nga xam mooy ñëk moy zone est bi ñu ngi canal est ou bien prolongement du canal central parce que fofu dañu gisoon ni amna ben yoonu ndox bo xamanteni bu war a dugg si géej gi à chaque fois bu ñëwee ba si géej gi dafay mel ne lu ñu lu ñu tuddee faute dafay am étranglement c'est-à-dire li nga xam moo fa nekk pour war a yóbbu ndox mi dafa ndaw ñu ne nag au niveau de la ville duñu bàyyi à chaque fois chaque année période hivernage je pense que population yi du souffrir les populations yi dëkk yi nga ñi nga xamante ñoo dëkk këri kaw ak ñi nga xam ñoom ñoo dëkk côté Mérina bi ñu ne dans le cadre du programme dañuy def li ñu tuddee exutoire bu ñu ne exutoire nag mooy fi nga xam fa la ndox mi di jaar pour dugg si biir géej gi mais nag dañ koy yaatal du doon boo xam dafay ndaw au moins mu am yenn normes yi nga xam ëllëg aussi bu ñu bëggee defaat le canal mu ñoom bu ñuy ñëw rek ñu raccordé aussi nga xamante ni aussi loolu dina permettre pour les travaux mais aussi na permettre aussi ñi nga xamante ni ñooy dëkk ci côté boobu aussi in euh, taw bu amante ñooñu bañ a am ay ay ay ay cas d'inondation mais dina permettre aussi ci benn volet aussi mooy station Baudin bi parce que Baudin boo xoolee ndox yi nga xam moo nekk centre ville moom moo koy jël yi nga xamante aussi dafa a jaar ci canal boobu bu fekkee dafa ñëw duggaat si station booba station dafay xaw a metti voilà pour moom mu jël ndox yooyu donc loolu dal moo taxoon ñu def foofu euh, travaux yooyu def aussi visite pour wan ni population bi actuellement le palme démarré na beneen fi nga xam ne dem nañu fa foofu zone nord bi la foofu assainissement communautaire la bu ñu nee assainissement communautaire nag mooy li nga xamante ni population yi ñoo ko jël seen bopp parce que dañu gis ne Rufisque boobu ba léegi population ñi ngi commencé di liggéey seen bopp di génn ndox yi seen parce que gis nañu difficulté yi nga xamante ñu ngi koy am ñu ne duñ leen bàyyi noonu ñu dem dañuy ñëw ñu encadrer leen toujours dans le cadre du programme PALM dañ leen encadrer bu ñu leen encadrer ñu techniquement lu ñu leen mën apporter mais financièrement aussi lu ñu leen mën apporter donc aussi si biir loolu aussi après euh, comment dire, nous avons am aussi leneen li mooy troisième partie bi moom ce qu'on appelle euh, plaidoyer communication à sens euh, comment dire, formation et renforcement de capacités.

yenn moyens wala benn xaalis boo xam mën na ko terminer travaux yooyu parce que ay travaux structurants la ay travaux yu mag la ñu xool aussi ñu ñu mën a yëkkatee suñu baat pour ñi nga xam ñu ngi si kaw ñi nga xam ñoo waa ñoo euh, ñooy état bi ñu mën a jàppale nu ñu mën a eggalee travaux yi mais du eggali rek am na aussi tëngëj tamit laaj yeneen infrastructure c'est-à-dire yeneen canal yoo xam ne war nañ fi mën def zone aussi canaux donc li aussi euh, troisième bi aussi communication communication moy li nga population programme la mairie technique sur place et que programme pour nous tout ce qui est ñoom programme de def assainissement approcher maire yi wala la maire approcher, leen accompagner c'est le lu mu mënti doon. am bien troisième fànn moi bu ñu defee faire travailler pareil aussi moi renforcement de capacité donc aussi il faut une ñëw di population wan leen nu ñuy faire entretien réseau. après sax si biir loolu peut-être la mairie, après avoir certains réseaux nous leen def dotation en matériel bu ko defee aussi ñu mën def entretien mais ñun aussi nous taxaw avec les services techniques yi nga xam ne ñu ngi fi nañ leen xool nu ñuy entretien bi mais tamit dafa am particularité am yenn zone où xam te aussi ñoom pour ñu am fa accès assainissement euh, koy wax ni communautaire peut-être ñoom dañu am ay difficultés foofu aussi ñu jéem a xool nu ñu mën def ay parce que dañuy avons des ñu sceptiques, ay fosses septiques pratique des fois dafay xaw metti wala des fois du baax et que à chaque fois boo vidé vivez nga gis fosse day fosse day feesaat là aussi ñu mën encadrer ñu comment faire une fosse septique pour xamante au moins même boo doon vidé ñaar euh, par mois wala par 15 jours di nga mën durée doo ko vidé donc daal en gros je pense que des programme bi loolu

kanamu canal bi nga xam fa la ndox mi aussi là aussi ñu bêtons là ba nga xam ndox mi bu ñëwaat bu ñëwatee dina am nu muy duggee du moment où vous suuf vous yooyu di ko mën mais aussi dafa am un particularité boo xoolee si kaw quartier yi dañ fa bari déjà faut ay cité la donc cité nous aussi ñu ngi assainissement communautaire et que canal vous bu où nga dugal assainissement communautaire aussi comme li ñu wax sank ndox yi bu da fay duggaat ci biir kër yi donc motax fofu aussi canal boobu dañ koy défar en plus de accompagner population yi nga xamante ñom ils sont en amont du canal mooy ñi nga xam ñu ngi ci kanamu canal bi bu ko défé ñom aussi ñu mën accompagner ci sen projet communautaire yi nga yi ñu yor ba nga xam ne lepp continuité lay doon pour daal lepp daal ñu jéem xol ñu soulager les populations par rapport ak ñom jankon li jafé jafé yi nga xam ñu ngi koy dund